revue des titres yi ànd seeg euh, moom Mbaye Ndiaye. ay nuyu nañu leen jamono ji waxtu bu jotee yéenekaay yi xëy euh, fësal xam la musique euh, tey naa concert bu fekkoon dañ ko wootee ci fête de la musique moom dina gën a xumb. tey bi ndax mooy fête de la musique ñu ciy jaajëfal suñu mbokki waykat yëpp yi nga xam ne ñoom dañuy jàkkaarloo et puis fajar gi tamit également. bokk si ni inconditionnel bari ngeen lool nag ku mu ci manti doon yenn saa yi fu ñu dajee si ay ndaje ñu wax benn témoignage bi donc euh, ñu di euh, euh, jaajëfal kon nag yaa si dañu koy door rax yéene kaay groupe D-Média La Tribune la woon dafa woon ni woon xëj na nag la woon dafa woon ni xëj na moo tax mu soppi doxalin kooku moo di Aminata Aminata Tall mi nga xam ne moom di jotoon nañ ko fi dénk conseil économique social et environnemental jigéen président Macky tey jii nag moom fës yéene jàkkaarloo Macky Sall fës yéene tëgg boolam parce que moom it xam naa concert bi dina dëpp dina dëpp que ni ni mu doxalee nii fa mu nekk nii gis na ni neena na lu njiit njàkk jamono ji fii réew mi toll ci wàllu politique defante gi lu njiit njàkk bu ñu ko seeti kenn ndax kenn képp la moo di président Macky Sall Amin Taal moo xam ne loolu ci yéen kaay groupe euh, euh, des médias nee élection yi ñu dëgmal nag euh, mën nañu ko jàppee lu ne sauf ay élection ndax lii ñu gis du ay élection te nag ñun ñëpp dañu war a booloo joxante loxo ngir xeex li nga xam ne moo fi am jamono ji kon nag moom pare na moom am na taal takk na ni gëm ngir jàkkaarloo président Macky Sall ba mu àndaloon démb tey ji mu fës kee ne defanteex moom loolooy politique. yéen a kaay groupe des médias ñëw ci Bougane dan euh, Dany moom nag nee na euh, euh, fii ñu toll nii jarul wër kan mooy responsable conseil constitutionnel fitna gi ñu nemmeeku ni defante gi. Euh, du kenn ku dul juróom-ñaari maam yi nga xam ne ñoo nekk ci conseil constitutionnel bi euh, ndax nag euh, moom dafa jàpp ni dérive yi ñi si ñàkk seen bakkan arrestation yi ñi ñu teg loxo amul bu jaruñuy wër ba sonn ndax conseil constitutionnel bi la seen décision bi nga xam ne jot nañu ko jël ay Aïdara Déthié Fall Mame Diarra Fam ñoom nag seen doxum ñaxtu bi nee na ñu ngi ko jeexalee ca ndax nag war nañu leen àtte yaakaar naa ne Mame Diarra Fam Déthié Fall ëllëg doon su la ñu wax biir ñëw wala bële bii nii kon donc suba ah, kii di Ahmed Aïdara nag nee nañu àtt ma la ñu koy la ñu koy àtte nañ nañ leen bàyyi ñu génn waaye ah, conseil de casserole tëggum tëggum mbana tëggum casserole tëggum ah, lépp lu nga xam ne rek dafay def bruit klaxon yi loolu la Ousmane Sonko wootee fu mu nekk nii bongo maan yi moom joxe nañ seen i numéro di xaar ku leen luyee nee nañ ku mënul tëgg rek boo leen oowee moom mën nañ ñëw taxaw sa buntu kër bu waxtu bu jotee ñu tëggal la ba nga doyal te si daal di dem ñibbi noonu fu mu nekk joxe nañ seen i numéro euh, ñi nga xam ne ñooy tëgg bool it euh, fu mu nekk joxe nañ seen i numéro ku mënul boo dëkkee si xam nga euh, mën nga dëkk si quartier résidentiel doo doo mën a tëgg nee na boo leen oowee rek mën nañ dem ba si bayal public tëggal la li ñu lay tëggal après <laughs> ah, ah, le malheur des uns fait le des autres de ñoom tëggkatu bool yi fu mu nekk nii am nañ marché de en tout cas Ousmane loolu la woote maanaam concert bu mag bu nga xam ne nii Euh, ku nekk fa nga nga tëgg loo nag na def bruit rek nga tànqal président Macky Sall vox populi nee nañu nag euh, Idrissa Goudiaby bi ba nga xam ne ay mbokkam dañ doon wax ñu def autopsie poopee doam si lañ soxtam ñàkkoon fa bakkanam ndekete yoo du bal moo ko rey kenn sox nee nañu autopsie bi lu mu génne moo di arme blanche moom moo ko rey si anam bu ñaaw nee nañ soit jaasi la walla euh, sémmiñ en tout cas xeet yooyu la daal la ñu wax h ou la ñu wax na ah fu mu nekk nii moom moom la ñu wax ne autopsie loolu génn ne moo ko faat alors ñu doon yaakaar ne kon nag peut-être takk der yi ñoo ko sox nañu xoolaat bu baax ndax autopsie bi lu mu génn moo di jaasi wala semmiñ moom moo ko faat. sama question dem bi ñëw na de. mi ngi noonu nañu ci xoolaat kan mooy kan mooy yi ci manifestation yi. ku rax si manifestation bi yor jaasi wala semmiñ. kuy rey xale yi ci manifestation yi. ane ku ci en tout cas box génn na li nga xam ne moom mooy autopsie bi non force de gisuñu yor ay sémmiñ ak jaasi daale noonu boog war ñu yor sémmiñ war ñu war ñoo loolu yëpp alors kan moo rax ci manifestation bi ba ko yéen baa ngi nii vox populi mm. samp na euh, ndax nee nañ góom bu bu xóot la ñu nemmeeku ci ci ci euh, autopsie bi nag ma woon moom moo dikkaat tey jii euh, yëkkati kàddoom ndax aatu réeroon na kenn déggatu ko woon ba ñu ko wàccee ba léegi moom nag moom fi mu nekk moo fee feeñaat takk ndigal génn si beneen façon bu na taal Thioub bu fës génne jàkkaarloo nag président Macky Sall defanteex moom moom fu mu nekk nii ca la nekk defanteex ki nga xam ne moom mooy euh, président euh, Macky Sall ne lu njiig njàkk fii ci réew mi tolluwaay politique bi kon Sall ngaa njàkk Ousmane Sonko nee na bien bon nag président Macky Sall na waaj soit daf may faagaagal rek wala mu jàpp ma ndax nag le 29 moom dootuma toog suma kër di yóbbu sama doom nankaat demal jàngi wala may wala ñenn ñi si kaw état taxaw naan dugg leen moom dafa fës génne wàcc euh, dox dox bi le 29 kon nag doxum ñaxtu bi woote na ko euh, Déthié Fall Mame Diarra Fam ak nag ay dara mandat de dépôt la yéenekaay dikk na ci Walf euh, Quotidien dikk na ci Yewwi active son deuxième plan deuxième plan bi nag euh, moom moo di concert tëggum bool tëggum mbana tëggum lu mu manti doon tamit tan xalaate rek klaxon bi nag sa la bokk ku yor sa oto nee nañ bu la neexee nga klaxonné ak ay manif spontané loolee la ñu fëskee ne woote ci li nga xam ne rek moom moo di seen manifestation bi ñu woote kon mercredi CFE entrée en sixième trois cent mille euh, candidats mu nekk nii ñoo nekk ci ligne de départ bi loolu ëllëg dañu koy entrée en sixième euh, mooy examen bu njëkk bi euh, ku si nekk am am am am mu ngay ku bos waaw entrée en sixième Biraye moom xam naa comme moom diplomate la moom xam naa bu muy def entrée en sixième moom mooy élèves yi sérieux yooyu. teel a teel a yegg sa classe la. est-ce que fekk Berlin. Berlin la non non. defuma entrée en sixième. dafa am da nga ko tëb. non defuma ko parce que amuñu ko woon en fait fu ma. ah temps yooyu amuloon entrée en sixième. non fu ma jàngee amul. ah yaa ngi woon Berlin. <laughs> yaa ngi woon Allemagne. fu ma jàngee daal amul entrée en sixième. ah dinay wax ni ko jàngee. dinaa la diplomate dëgg. ñun de ñoom moom bàyyi woon école xeet bi bu ah, euh, Moussa Diallo. <laughs> suñu kër gi teg naa bi rek ba damay gën miir bi rek dugg sa école boobu lañ leen doon. ba la ñu ak chocolat. Moussa <laughs> moom loolu lay goûter verre de ak chocolat. yooyu la doon dundee. moom lay dundee waaw moom VIP affaire de parfois mu ñëw damal ni ku si nekk benn barre de chocolat jox la yooyu la xam. Euh, yow nag ko nga defee. man de dama doon dox naaj bu tàng sax. jaay ñu ne macha allah rek. salaamun xawlan min rabbin rahiim. salaamun xawlan min rabbin rahiim. bu nekk sa chance yow yaa am chance jàngi Berlin. kii moom kii moom. ne mës nañ këpp sa mburu xoola boo nekkee classe école nii ñu nekk cours. mais ça veut pas dire que j'ai passé toutes mes nga daan yor sa mburu nii di xam ko nii nga jékki-jékki këpp yow réussite rek mooy def sama xol <laughs> nga këpp. ba ba ba sérieux def nañ ma ko ba taay bi mu taxaw. suñu waa classe. ba am ko la waxam tifli ko. ah waaw wala nga nit ñi ñoo ñëw di la ñaan di la ñaan nga ubbi ko. doo lekk tifli tam boo ko bëggee sànni mën la may ma ko moom mën naa lekk tifli tam. <laughs> yéen kaay bi boobu ndongo daara la. <laughs> ko nag euh, soit jaasi la euh, la ñu wax ne kon autopsie bi euh, loolu la joxe yeewi biis loolu leen joxe manifestation bu yees bi ak nag li nga xam ne moom la ñu fës keenee doxale le 29 doxub ñaxtu la ñu fës keenee woote waaye nag nee nañu ci boppam tëggum pool yeex loolu moom moo ko jiitu mercredi bi ñu dëgmal Mame Diarra Fam Déthié Fall Ahmed Aïdara mandat de dépôt lañu leen defal yéenekaay bi euh, dikk na ci yéenekaay bi di suuf dikk na ci spectacle anticipé bi nga xam ne euh, nemmeeku nañu ko sa université Cheikh Anta Diop étudiants yi ñoom dañoo tàmbali démb si tëggum mbogeex lu nu mel xam nga Sénégal nag moom dafa bëgg ambiance Sénégal moom wax fa Léopold Sédar Senghor waxoon l'émotion est nègre la raison ñun dañu bëgg émotion dañ koy dund soxna <laughs> foofu la génne yeewu askan wi ñoom nag ñu ngi sàkku ci sénégalais ci concert bi nga xam ne moom la ñu woote euh, tëggum pool yeex euh, mbana yeex euh, cin yeex kaasu ndékki yi nee nañu nag loolee nañu ko tàmbali ak klaxon yi le 29 juin ci manifestation bi nga xam ne moom la ñu bëgg a anticiper ce que révèle l'autopsie yéen a kaay bii di la soleil foofu la génne Idrissa Goudiaby bi ndekete yow ab ngan du à pistolet wala lañu ko sox du sax dañu ko sox bal waaye nag nee ñu li ko sookee moo di benn arme blanche bu góom bu xóot la def ca moom réew mi quotidien ñetti doomi pendanaar yi la andi El Hadj Ahmed Aïdara monsieur le maire bu Guédiawaye honorable député Mame Diarra Fam wax euh, Déthié Fall euh, député mandataire Yewwi Askan Wi manifestation interdite lañ leen euh, jàppee gis nga nag Ahmed dara Déthié Fall Mame Diarra Fam fu mu nekk nii dañ leen tëyandi di xaarandi kon nag euh, ñu euh, àtte leen. ax nag euh, yeewi askan wi ba nga xam ne nee ñu nag ñu ngi ci seen bi ba léegi de bu doon musique ñu ne ñoo ngi ci seen bi ba léegi fu mu nekk nii ñoo yor micro bi fëskee ne doxal ndax nag Déthié Fall Mame Diarra Fam El Hadj Ahmed Aïdara ñoo ko ci ñoom nag ëllëg la ñuy jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy àttekat bi waaye nag Ahmed ñu nañu vendredi waaw alors concert de casserole bien bon nag gars yi nee nañ jaaykatu jaaykatu mbana yeex yooyu fu mu nekk gis nañ seen bopp les gérants explosent de collège dañoo mer ba futt nag ndax nee nañu ñoom ñoo station yi mënuñu fu ñu defee manifestation nga gis samabo yi daal di si profité euh, yàq seen station te moonte de ay sénégalais ñoo fay liggéey parce que def nañ seen point de presse quatre cent et quelques personnes ñàkk nañu seenam xëy tuuti euh, euh, ya nekkoon ca station yi dañu koy dajji la ca nekkoon ñu jël ko nguur gi mënu leen dàmp wala te mu leen digoon dàmpaay jotuñu ko te nee nañu ñoom ay sénégalais ñoom ñoo ko yor ñoom ñoo ko euh, euh, bu fekkee même ay ay ay multinationales ñoom ñoo ñoo ko yor ñoom ñoo koy gérer fii ñoom la seen xaalis nekk donc ay sénégalais ñoo ci ñoo ciy liggéey voilà seen sutura fa la nekk seen dépense euh, quotidienne fa la nekk tey jii ña nga xam ne station boobee ñu yàq est-ce que ñooñu dinañ am lu ñu tabaskee yàlla rek xam ndax bu fekkee liggéey yoo mënoo am weer wu dee si ñenn ñi wala même bu fekkee da nga fa am contrat bu tax quelque soit lañ la jox ca weer wu dee amaana doo ko jot ba nga ko war a jot donc ñu ngay fàttali sénégalais yi ne ñoom seen station yooyu ay sénégalais ñoo fay liggéey donc nag bu ñuy yàqati nañu nañu xoolaat te bañ a yàqal ay euh, sénégalais le mandat dafa ñëw ci Yewwi Askan Wi euh, dévoile son euh, plan d'action wane nañu ko manifestation yi nga xam ne moom la ñu bëgg a woote bii la yoon nag tëggum casserole euh, sa la bokk l'observateur dafa ñëw ci manifestation noon autorisée waaye ak ña nga xam ne ñoom ñoon jote jàpp 250 la ñu waxoon am na ñu ci jàpp waaye nee nañ am na ci 10 yu nga xam ne ni soo moytuwul dañ leen di tëj à ndax njombe la ñu doon def am nañu ci ay preuve ñoom bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi ndax nag benn groupe bu nga xam ne nii li leen taxoon jóg moo di attaqué centrale bu centrale électrique bu Cap des Biches. coupé courant bi ak yeneen intérêt yu français yi ak ay kër yu yenn ci ay autorités. étatique am na si dix yu nga xam ne xam naa ni def nañ seen enquête ba xam ne ñii lii moo leen taxoon jóg maanaam mission bi ñu doon dox ci biir manifestation yi dañuy raxoon ci gars yi mais leen taxoon jóg moo di attaqué centrale électrique bu Cap des Biches ak nag euh, lépp lu nga xam ne nee nañ français yi ñoo ko moom waaye dem song ji ay këru yenn ci ay kilifa yu nekk ci nguur gi yenn kaay bi di l'observateur loolu la joxe tey jii. ni ay information alors Déthié Fall Ahmed Aïdara Mame Diarra Fam dix yu nga xam ne jot nañu leen a maanaam ay présumé yu sécurité yu Ousmane Sonko mandat de dépôt lañ def góor gi ànd booy moom jot nañ ko bàyyi nekk te dañ ko jàppoon man yëguma ko woon moom dañ doon seetaan fajar gi jot syndicaliste bu poste dañ ko bokkoon si ñu ñu jàpp góor gi ànd booy mujj nañ ko sànq laa jot ma si message am euh, moom dañ ko dañ ko dañ ko jàppoon góor gi tamit beneen yoon tey itam xoolal rek li ngay def na parce que manifestation waa post yéen post yéen a ngi nekk ci ay jafe-jafe yu dul jeex xam naa nag looloo ko taxoon génne moom it waaye dañ ko jàppoon de mujj nañ ko bàyyi. sama mbokkum tëngéej boobu ak yéen kaay bi ah ñëw na ci Aminata Aminata Touré bi nga xam ne nii fu mu nekk yor na ngànnaayam de jàkkaarloo ki nga xam ne moo di <laughs> président Macky saal moom xam naa nag Aminata Touré moom kii lay yor mbana lay tëggee. Aminata Tall Aminata Tall dama dama juum Aminata Tall nii laa fi defoon di wax ay transfert huit transfert <laughs> euh, Bougane Gueye Dany ci lii quotidien nee na un vrai leader ne doit pas être obnubilé par pouvoir alors fekkee yow nee nga leader nga noonu euh, euh, pouvoir warula tiital waroo faa teg sa bët rek foog ne li bokk amul tey nga dee a Tall donc ancienne présidente bu conseil économique social et environnemental nee na élection yi ñu gis nii daal moom wax fa dëgg neex yàlla ajul ngooñ lépp la sauf ay élection kon Aminata Tall ma woon moom moo dikk tey jii parce que ne defanteex Aminata Touré ndax Aminata Touré fu mu nekk ni ku laal waa bi <laughs> benn bokk yaakaar ñaari Aminata ñaari Aminata tey Aminata tey loolu combat la de Aminata Tall Aminata Touré waaw ate donc laa ko affiche la de nañ nañ nañ xool lii di ñëw lu muy joxe ci kanam libération ñëw na ci ay xale yi nga xam ne dañ leen sàcc ay dañ euh, sa tëngee ak sa pikin Ouest euh, Foire fi également am na benn vidéo bu may gis muy circulé benn xale bu nga xam ne dañ ko dañ ko wala dañ ko sax xamul en tout cas bari na lool euh, tës démb rek laaj ñu ngi koy waxtaane donc képp ku am sa doom mais xamul sa nooy sa doom bu demee jàngi sa xel du dal nga yónni ko sa bitig ba sa xel du dal ci biir kër gi it euh, ñay def njombe ña ngay def njombe ndax xale ba nga xam ne moom lañu réewoon sebi xotaan kaka rey ne nañu mu ngi sa biir kër ga donc xale yi dañoo exposé mm. réew mi toll kenn xamul nu nu nit ñi mën a def lu ko metti moom Omar Gueye sa bi Yacine. waaw de euh, prélèvement de taxes sur les carrières Omar Gueye fâche l'AMS ah l'AMS mooy association des maires du Sénégal ah Omar Gueye moom. moom bokkatul association bi nekkatul maire. ah li daloon li dal am na taal dalu ko. <laughs> bokkoon bokkatoo nga ne bukk du fi. <laughs> ñu jeexalee Oja ah ci concert bi ah. aja euh, Oja foofu la génne concert baa ngi ma dama xam kan la kii est-ce du kii yuñ bis. nii ci bunt bi di bale kan la war a doon wala Fatou Tampi Fatou Tampi en tout cas moo nekk nii daal ci bunt bi. ki nekk ci biir ci biir nii. moo ngi nii daal xam naa moom est-ce que du précis. daa mel ni moo fàttali nopp yi bëggul dégg di ko ko tànqal. kii kan la yu. kii Youssou Ndour la borom Bercy. waaw concert sans tama au lieu de sans casserole tamit. ah kii est du mimi. waaw xam nga waaw mën na nekk itam Aminata Touré Bayam Touré dañ ko daan takkal ay kii dañ ko daan defal musóor bu moo ne bool moo bombante ak Youssou Ndour waaw parce que kii yor bale bi nii taxaw ni ci bunt bi Queen moom la en kii de kii mais kii taxaw fii goo mën a Queen Biz parce que kii dafay bañ ko donc kii àndul ak président Macky waaw kii Sonko moo jiitu ak boolam ak kiiwam poolam fu mu nekk nii daal euh, ndajam casserole bi fête de la musique bu casserole bi daal ñoom door nañu ko parce que parce que ne tànk <laughs> jaaykatu mbaa fu mu nekk nii affaire na dox de si ñenn ñi. <laughs> <laughs> yàlla baax na incha allah suba xam naa ni incha euh, si le euh, concert de casseroles boobu nga xamante ni opposition bi woote nañ ko di am bu soobee yàlla à vingt heures vingt heures lañ wax vingt heures dix vingt heures la stade bi fan la oh, ci sa kër yi la soxla stade Sénégal fu la nekk rek sa kër fu la nekk a taxaw si mbay boo taxaw si buntu ba ko jëm ñu jaar ci xibaar yi <laughs> juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum Déthié Fall Mame Diarra Fam dañu leen dugal kaso di leen atte suba ci àllarba ji El a Ahmed Aidara aljuma la ñu koy atte la ñu leen tuumaal nee nañu trouble à l'ordre public participation ci manifestation non autorisée ak provocation d'un attroupement loolu daal lañu ñu dajalee ci tuuma ni leen ko xëpp ñu ni coalition gëm sa bopp nii loolu du dëgg nañ leen génn ci kaso bi ci na mu gën a gaawee des na ci dellu saat wax itam ci toj yi am ñi nga xam ne ñoo nekk njiital station d'essence yi nekk ci Sénégal dànkaafu ci élection yi ci manifestation yi jëkkoon yàqule nañu toll ci benn milliard ak téeméeri million ci franc dootu ñu nangu nag di yóbbu quatre cent cinquante quatre personnes chômage de loolee jaaduwul ndax ay manifestation démb lañ doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi sport dinañ ci ànd ak Baye Mante Mboup yéen a kaay mante la ci bu ndoye faram fàcce gi Mambay Ndiaye Voici Trafic News. Papa Alé Cissé. allo oui Yacine. oui Papa Alé fan nga nekk.